waaye ba instant bii incha allah dañ ko feesal comme ni ñu wax rek jamono yaa ngi ci làmb je beneen làmb la woon am tension bu ci am. ba tax na jàll na lii incha allah gëm naa ni dinañ def instant bi kenn mësul def bu soobee yàlla loolu lañ gëm incha allah. jërëjëf salaamaaleykum ñoom ñu ngi lay bu baax a baax di nuyu ñoom benn question laa am dañu gis sa combat ak Ama Baldé nga teel a jël ay engagement nga wax sa supporter teel leen a ñu bëre man combat yi ma doon am yëpp seen combat la woon mais sama combat ak Ama Baldé man sama combat la man en personne ñu bëggoon xam combat bi nga war a bëre le premier janvier mu sa diggante Boy Niang lan lay représenté ci yow sa combat la combat supporter la wala yéen a ko bokk. bii sama combat la ndax confirmation la avant muy def lu yàgg dara. ci nekkoon suñu borom le premier dañ ko war a confirmer incha allah ba daanaka bii sama combat la incha allah. jërëjëf mbokk yi di nuyu nañu di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñun ñu ngi lay nuyu. di ñaan sa anniversaire bi yàlla ko fekkee téeméer commande sutura bu mucc ak képp ku ko yéene man benn question rek laa am. mooy que ni dama gis 100 pour cent parcelle bi tey ma gis ci ay mbir yoo xam ni sa combat passé gis nga ci woon lan la adversaire bi toll loolu wala euh, bés bi toll loolu parce que gis naa ko ci ma ay mbir yoo la adversaire bi toll loolu wala lan la. waaw pourtant ñoom ñoom doon ñëw ah muy entraînement Albouri euh, fois passé dafa amoon bu jege loolu moom moo tax gis nañ fi gis suñu frère Tafa Mbare yooyu yëpp. li may wax chaque fois rek dama koy comprendre ñun ñoo bokk suñu parcelle ñoo bu ñu def bu ñu dara tàggali li may wax chaque fois utee ay ay bëgg-bëgg teewul ñëpp nekk ci jàmm ba tax na su may rakk lañ jàmm laa leen yéene di leen ñaanal jàmm yàlla defal ñu ko Sénégal yëpp incha allah Sénégal jëm jëm kanam mais làmb moom ñi ngay gis fii ak ñi ngay gis mbëru parcelle ñëpp ñu ñëw entraînement vraiment. rajo bi ma sooy tax ak di ci remercier rek di wax xam nga message rek lépp ci saako bari na mais période bii nekk ci préparation ba da ngay xat mais ñoo ngi remercier ñëpp di leen wax ñaan yi yàlla nañu ko yàlla boole defal mais ñun ñu fekk ak yu baree bëri di ko yàgg di fekk ñun ñëpp incha allah. say franchise yi ah ba tax na li ñu war lépp mooy ci bëri ci xeex mooy ci physique alhamdulilah yàlla dimbal nañ ci bu baax a baax di ñaan rek ñu fekk bis ba incha allah. mais loolu du raw xam nga bëre moom da ngay dem comme ni ma la wax chaque fois da ngay lii des fois fekk fa lii yóbbu lay fekk fa leneen ba tax na ñu ci wàllu yëpp rek li ñuy pare ñoo ngi ko préparé incha allah bis ba comme ni ñu wax rek incha allah dañuy dem jëli ndam le premier ñoom incha allah ñu ko fàttali bu soobee yàlla. asalaamaaleykum. Malang Sané journaliste des sports.

oui ay crainte moom ku koy am rek mooy dañu suivre wala xamoo parce que li ñuy wax rek année yëpp suñu rakk yi ñooy bëre ñu ànd ak ñoom seen préparation. je mel ne góor na fi franc bëri na fi italwa ak suñu rakk ñoom ak ñu bëri bëri nañ fi ñu ànd ak ñoom ci ñoom préparation ba tax ñoom ñoo ngi woon dañu gisul woon ci làmb rek mais ñoo doon compétir bu baax a baax a baax xam nga na loolu moom amul problème. da nga amul sax maanaam moom coach wala maanaam <laughs> journaliste ah non suñu grand maa ngi ziar baax a baax coach laa amul ci mais dara bonne continuation lépp dafa mel. ayca ayca waxal waxal Badou. jërëjëf di ziar assistance bi yëpp Badou 100 pour cent dëgg waaw Modou Lo on avait une question à vous poser mooy si préparation Modou Lo di nga gis ni que Modou Lo dafa bëre combat boo xam ne nii il n'y a pas deux mois mu ñëw préparé ci diggam ak Boy Niang te c'est une première si combat wu Modou Lo yi mu bëre yëpp mu bëreeg mbër boo xam ne nii ñoom ñaar tolloo nañ ci taxawaay tolloo nañ ci doole ñoom ñoom ban impact lay def ci Modou Lo ndaxte képp ku mu doon bëreel dañ naan Modou Lo def ko sàcc doole ba ci combat bi weesu Modou Lo loolu la doon dégg combat bi ban impact la am ci Modou ci côté préparation ak ci bir geu mo Lo nan la wara aborder lamb merci beaucoup. waaw lamb mom li wax man amna adversaire bu nek ci lamb yi. damay wax combat yi may ye euh bu dee 90% suma adversaire jo mopp mel doole ci lamb parce que machallah allah parcelle am na catégorie bu nek ma ne ko bu nek ci te ñepp ñu ci ñew di japp maanaam ay côté poids ak ay yooyu noonu wax dëgg yàlla amuñ ci benn benn benn benn problème vraiment. loolu kese la quoi. sën benn question la waaw. Ya, nee na impact nah, bi. waaye comme ni mu rek lamb ji sama lamb bopp te li wax sax fois rek yàlla ya, dogal na ni gëj nañoo am lamb bu lamb lamb yu am yëpp lamb ay événement la lamb yu mag a mag la maanaam dañuy wax rek. toll nañ fi nga xam ne bis mënuñu dépassé bis mënuñu di suñu kaw xam nga ba tax na daal vraiment di ñaan yàlla may tax fekk rek incha allah baax na bu soobee yàlla. ok Modou dugg nga fa sept fois am fa sept victoire ba loolu dafa yëngal Pikine lool ku mel ne Khadim Diallo daan nga ko fa daan fa Bungo Diop daan fa Laye daan fa Cheikh Ngane am na seen ñaari Ama Baldé benn yoon muy sept combats sept victoire léegi nag ñoom waa deux cent pour cent bi yëpp ñu jóg. ànd ak staff woo koom ku ci mel ne Magu Pikine ñoom père Palla père Mansour Diop ñu ne dafa doy sëkk te 200 pour cent bi saa buñ àndee mosuñoo ñàkk combat bu dul sa combat ak Eumeu Sène est-ce que les jours tey ok ok ñoom saa buñ àndee bu nekk dañuy am doole te combat bi mooy daj dëpp gi parce que lu mën di xew moo nga am ndam moom mooy mu am ndam dootoo bëri ak ñoom. kon yaakaar naa ne combat bi la bu am solo boo xamante bi da la fay jëlee arène nationale bu nekkul yow. non saa yi comme li yow sa sama kooku ak Abdou Sène dañ koy defuñu woon 1000 pour cent sax comment so ak franc boo toogee ñaari pour cent boo dem 200 pour cent ba tax na ñu ànd leen ñaar bu baax a baax parce que c'est li ñuy wax teel a fas day jeex li ma leen di souhaité li ma leen di ñaan mooy ñu ànd ñu nekk benn sport day jeex live bi dafay continuer li leen wax yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom ñu ñëw nekk 1000 pour cent teel defar bi gën a métti incha allah. parce que ñoom ñëpp a koy yëg. amu ne 100 pour 100 wala 50 pour 100 ñoom ñuy toog ñu ko naan léegi mais da ngay bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw incha allah lekk say maanaam nga daal leen jël bu rëy. da ngay confirmer li jël parce que léegi am na lenn question bu ma bëgg a tudd. maa ngi leen di sant yëpp leen ziar ay nii moom kenn xalaat ko ci combat yooyu ay nii moom gëm naa ne jeex na incha allah ñoo def lu ay nii moom xalaatuñ ko ci wax dëgg yàlla waaw